am na tooñeel gu yàgg gu tegu ci seen ci seen kaw goo xam ne gi tooñeel googu war nañ ko dindi bu fekkee ne amul jumtuwaayu maandute bu ko mun a dindi amul buntu waxtaan yu ko mun a faj léeg-léeg mun nañu jëfandikoo kàttan gu teguwul ci yoon goo xam ne gi mun na jur yëngatu gu metti ci ci ci pénc yi mën na nekk ci wàllu politique mën na nekk ci wàllu social mën na nekk ci wàllu économie mën na nekk domaine yooyu yépp léeg sax mu nekk ci wàllu diine mais mun na nekk ci domaine yooyu yépp benn bu ci ne am na loo xam ni njàmbat lu yàgg la goo xam ni li ko ins li ko li ko saxal mooy maandute yemale kenn ku ne yëg ni bokk nga kenn ku ne yëg ni jox nañ la sa àq bu manqué loolu dana wàññi loolu moo tax yonent yi nga xam ne naka jekk ñoom la yàlla teg ñu war a régler àdduna àdduna ku ko ku ko ku ko régler li may wax ni nañ ko téye te reglewuloo ko ci kilifteefu diine li la tabb diine diine tabb la ci doxalin woowu mënul regle problème mu justice sociale bu yàgg mënul regle yemale gu yàgg mënul regle kenn ku ci ne yëg ne sa ruux système bi moo ngi ciy liggéey parce que dañuy wax ne pénc moo gis ay nit la defarug nit gi nu mu gën a jege penc moomu di gën a jàkk mais bu fekkee ne ay tëralin la ak luwaay yi xeli doomu aadama di tëral loolu mooy la rub ibnu amir doon tuddee jawril atyaan ah jiinaa li nuxrij al ibaad min ibadati al ibaad ila ibadati rabbi al ibaad wa min jawril atyaan ila adli al islaam loolu yaa ngi koy dégg ne tëralin yi nga xam ne ci bànneexu doomu aadama la jóge ak gis-gisu àddunaam bu xat tëralin yooyu dafay créer ñoo xam ne ñi dañuy am ay xejj ci dara ay privilégié bu ñu ko waxee ci ci ci làmmiñu tubaab loolu lu mu gën a bari ci pénc ci gën a bari ci société muy indi yàqu-yàqu moo tax dal googu yitte bi mu am tax na maam sunu ibrahima alayhi salaam bi muy ñaan ñaari yëf yi nga xam ne benn bu ci ne dafa am dafa am njariñ dafa dafa mënul ñàkk ci nit mooy mu am jàppandalu dund mooy wërsëg mooy mu am tawxiid benn bu ci ne def ko lëkkale ak ñaan dal ak jàmm mais mu jiital dal gi ak jàmm ji rabbi cal hada baladan aminan warzuq ahlahu min althamarat man amana minhum ba aya bi man amana minhum ba aya bi jeex beneen bi rabbi cal hada al balada aminan wajnubni wa baniya an nacbud al asnaam gis nga bi muy wax ci amnut bi muy wax ci dal lëkkale ko ak wërsëg lëkkale ko ak tawxiid dafa ñaan dal ba pare ñaan wërsëg ñaan dal ba pare ñaan ñaan dal ba pare door ñaan tawxiid mooy mujj ci mucc ci bokkaale parce que ñaar yooyu benn bu ci ne bu dal amul loolu pour yegg ca du yomb bu nu nekkul ci stabilité nekkul ci jàmm du nu mën a liggéey lu créer yokkute ba tax wërsëgu yokkutewu wu yegg ci ñépp bu nu nekkul ci dal ak jàmm mën nanu am situation wu même fitna sunu diine sax dikkal ñu moo tax alquran di wax naan wal fitnatu ashaddu min al qatl nekk ci ñàkk dal ba taluloo sa diine nee na loolu moo gën a rëy sax situation wu tuur deret ak tuur bakkan alquran di feddali jàppaloo walla dugalante gi am ci diggante ak jàppandal ci koom-koom ak yokkute ci réew ak dal goo xam ni dana tax nit ñi tal seen bopp bee mën a nekk ci situation wu jëm ci liggéey ndax dañuy wax ni lii ñu tudd yokkute réew ñu koy wax ci baatu tey ñu koy tudd développement du dara lu mooy ay jëf yu bari yu ñu dajale ci ay waxtu yu tegaloo yoo xam ne yi dogul benn yoon meññet ma muy jur meññet ma yokkute mooy lu liggéey bi gën a bari ñi koy def gën a bari mu ànd ak ñooñu neexoog seen boroom loolu di gën a jur li ñu tudd développement moo tax alquran di ko tuddee barakaati minas sama jëfu doom aadama kese te neexuwul ak boroomam li muy andi ci pénc alal ju bari mën na am mais alal ju bari joo xam ne ji du ñépp koy jariñoo alal ju bari joo xam ni mën na am sax mais nit ñi du ñu am teeyug bakken gu tax alal jooju jariñeen jariñ leen laqad kaana li sabain fi maskanihim aaya jannataani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum waskuru la baldatun tayibatun wa rabbun gafuur fa aaradu fa arsalna alayhim saylal arabi ba aye bi ja sabab bu fekkoon ne suñu langage tey la dañuy wax ne dañu liggéey ba am abondance économique c'est-à-dire comme boo xam ne bii lu waay laal rek am loo dunde xam nga fii dañu lay wax croissance bi chiffres yi ni mu toll li am koom ci àdduna mbokk yi bu fekkoon ne nekkoon na ci loxo yoo xam ne yii dafa déggal boroomam bon kenn ku ci ne am nga lu faj sa soxla ba ngay dimbalee ndax bu yàggul rekk bi crise bi amee ci ci ci tugal réew yu mag yi rekk bi ñu dajalee ci liquidité dajale nañu lu ma mille milliards de dollars loolu bokkul ak li tëdd ci banque yi nga xam ne bu ñuy wax limpi bi nan la toll duñu am chiffre yu ñu ko waxe ay trillion la ñu lay wax cest à li nekk ci àdduna ci koom may na àdduna kenn ku ne nekk milliardaire di dem ak a ñëw waa loolu bu amee te am ñu bare bari ñoo xam nañu loolu gisuñu ci seen bopp mais loolu am na lu ko waral ah mooy innal insaana la zalumun kafaar ja ca suratu ibrahim bi nga xam ni nit moo jël akku mbokkam walla nit moo na sax ba jëlul li mu moom ci xéewal yi ko boroomam defal donc dal googu nga xam ne moom la ñuy moom la ñu lëkkaleeg koom boroom bi moom lay wax wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan yaatiha rizquha ragadan min kulli makan fa kafarat bi an'amillahi fa adaqaha allahu libas al ju'i wal khawf bima kanu yasna'un dañuy wax ni situation bi xew ci àdduna situation wu comportement doomu aadama la ak melokaanam ndax borom bi ñaar yi mu diggaaleeg doomu aadama yëpp def na ko mooy alhuda la diggaaleeg moom mooy wan ko fi mu war a dem ak li mu ko sant mooy wa saxara lakum ma fi samawati wa ma fi l ardi jamian minhu mooy mu tàggatal ko lépp loo xam ne lii bind na ko mu nekk ci biiram te mu sant ko rekk huwa anshaakum min al ardi wa staamarakum fiha loolu nag pour mu mën a am nit kooku dafa am fu nu koy jaaral dal googu dafa am yu tax léegi xelu ñu bari dalatuñ ci am na yu koy mënaase bu fekkee ne kàddu gu baax na noonu mooy bi ci jëkk ci yi menacer dalu société yi dalu sunu réew bu la neexee mooy noo ngi ci àdduna boo xam ni dafa jëm ci di gën a jëfandikoo doole di gën a soxor di bari xadar loolu àdduna bi yépp dafa mel ni yoon boobu lañu jëm walla ñu ci gën a bari dañuy jëfandikoo xadar dafa am ñoo xam ne dañu ko tànn léegi muy seen yoonu doxalin bu jàmm amee sax dinañu créer situation boo xam ne bii dañuy dengi dengiloo nit ñi ci seen jàmm jooju léeg dara du xew mais ay nit créer situation boo xam ni ku leen topp ni nit ñi tojante bopp fekk dara xewul parce que loolu aw yoon la wu aw nit tàmm wu aw nit tànn ngir dox si ndax ci loolu li ñu bëgg ci lañ koy ame ñii ras bëgguñu daluk àdduna am bëgguñu dalu réew yi am te am nañu jumtuwaayu di ko def tànneef la boo xam ne bi ñoo ko defal seen bopp loolu benn la ci yi nga xam ni day menacer sunu doxalin ñaareel bi mooy parparloo ci péete boo xam ne bi léeg-léeg day jéggi dayoo ba ki nga bokkalul gis-gis li ngay bëgg rek mooy mu jóge fi doo gis ci moom lu baax doo dégg ci moom lu baax sofaanam rek ngay wër di ko di ko di ko di ko di ko feeñal nga xam ni man daa ila asabiyatin fa laysa minna yonent bi moo waxoon ni képp koo xam ni sa liggéey mooy fexe nit ñi kenn ku ci ne doo xajoo sa moroom ci parparloo ci waaso ci parparloo ci diine ci parparloo ci tariixa ci parparloo ci kuréel boo xam ne bi xel lalu ko saadata mu fattis tafadal xam-xam lalu ko yar bu ñu mottali aussi lalu ko yooyutam ci yiy menacé di di di di ruur di yëngal jàmm ji nga xam ni wala dal gi nga xam ni amandi nanu ko <coughs> ni nu fexee aussi <coughs> ba àdduna bi ñépp di waxandoo bu jëkkoon àdduna kilifa yi ñooy wax ak boroom xam-xam yi ak ñi am cër mais léegi àdduna bu mujj bi ñu ubbi nii ñéppay waxandoo kenn ko ci ne mën nga toog yor sa portaabal bu ndaw wax ak àdduna tëju sa néeg walla nekk ci sa keppaar enregistré li ngay enregistré tasaare ko nga xam ne ñiy wax doo leen xam doo xam ban statut lan moo leen may ñuy wax ak nit ñi parce que kenn ku ci ne dafa am sa sa sañ-sañ fu mu yem am na ku mën a wax ak waa këram mais kàddoom ci këram rek la yem parce que responsabilité am génnewul bunt këram am na ku mën a waxu quartier am na ku mën a waxu dëkk am na ku mën a wax ak àdduna parce que ut sañ-sañam kilifteefam yegg na foofu donc fu kilifteefam yegg rek kàddoom mën na fa yegg waaye léegi noo ngi ci jamono boo xam ne bi ñi warul wax sax ñoo yor jumtuwaay yi di wax bu fekkoon ne dañu yem sax ci yoru jumtuwaay di wax di wax loo am njariñ sax xëy na mu tane mais lu ci gën a bari wax ji lii ci réer la tegu lii ci ñàkk yar la tegu ku ñu yarul bu waxee wax musiba ku xamul bu waxee wax musiba te ñooñu ñoom la moom ñoom la ñoom la ñuy ñoom la ñuy déglu gis naa benn waay boo xam ne bii léegi dafa am dafa am dayoo amul dayoo sax mais de toute la nit ñaa ngi koy topp ñu jox ko audience lu ko ko jox gën a ñaaw nit ñi làmmeñ rek koo xam ne kii loo wax rek làmmeñ wu ñaaw la nga koy nga koy nga koy jox koo diggaale rek koo diggaalelul ku sa yoon nekk ci moom ak ku sa yoon nekkul ci moom mais ñooñu fexe nañu ba ñu jox leen lu tax ñu leen di déglu parce que jumtuwaayu jamono bi andi na loolu alors loolu aussi bokk na ci liy yëngal dal gi ak jàmm ji bokk na ci liy yëngal dal gi ak jàmm ji aussi xëcc ko politik bu àndul ak sago nga xam ne ki koy def day jëfandikoo lu ne ngir am tonoom ci wàllu politique donc seexluwul féewale ngir am li mu bëgg ci wàllu politique seexluwul aussi boole ngir gën a moom boppam nga xam ne yooyu yàlla ngi ñuy dimbali yii dama ko def laytaay ngir ñëw ci waaw kilifteefu lislaam bi lan mooy taxawaayam ngir jàmm jooju ñu amal ko bu ñu ko amalee ñu saxal ko bu ñu ko saxalee ñu sàmm ko ñetti phase jàmm dañu koy amal waxoon naa ne condition yu koy amal bokk na ci mbaandute gu matale bu nu ko amalee dañuy fexe ba mu sax mooy lépp loo xam ne lii daf koy yàq ñu ñu ñu ñu loolu ñu ñu dindi ko lépp loo xam ne lii daf koy yokk doole aussi ñu di ko indi mais dañuy fexe aussi ba di ko aar mooy di seetlu di teel a wax boroom xam-xam yi dañuy wax ni fitna bu ñëwagul ñu néew ñoo ko xam mooy ñi yàlla defal ci ñoom gis-gisu leer di nga gis mbir moo xam ne mii ñu ngi koy ràbb dajaloogul nga xam ne mbir mii ñuy ràbb te dajaloogul de bés bu dajaloo ci kanam fii la ñu jëmee ñu ne bu fekkee fitna dafa dëgmal ku yàlla def ci yow leeru njub yaa ko mën a gis nee na bu xësee ba yëgsi nag ku ne mën na ko gis di ki wax waaye ñu néew a ko mën a faj bu xësee ba yëgsi ku ne mën nga ko gis di ci wax di ko analise waaye nee na ñu néew ñooy ñi ko mën a faj ñi koy faj nag waxoon naa ko sànq bi may tàmbali kilifteefu lislaam gi moo ci jiitu kilifteefu lislaam gi ñaari rôle bi ci jëkk mooy rôlu rôlu démbam cest li mu def ci li weesu ba nuy wax ne Sénégal am na aw doxalin woo xam ne wii Sénégal rek la am hmm? ñu ba da ngay dégg ñu ne dafa am lu ñu tuddee modèle sénégalais parce que da amul fen ci àdduna walla fi mu am bariwul waaw ah, c'est-à-dire yu yu war a tax ñàkk déggoo am bari na fi mais yooyu dafa am liggéey bu ñu def ba loolu amul jeexital bu rëy ba këree ñàkk déggoo loolu ab liggéey bu yàgg la ci cosaan ba tey ñëw bu ko defee ma ma teg ci euh, seen rôle seen liggéeyu tey nga xam ne ñaari phase la mooy kilifteefu dina gi liggéeyam démb ba tax nu am nekkin wii nga xam ne néew na foo ko gisee loolu mën naa ko tënk ci ay tomb yu néew bi ci jëkk mooy ni ñu fexe ba tabaxaat senegale bi ba kilifteefam mu toxal ko ci kilifteef goo xam ni mënoon na indi xëccoo yóbbu ko ci kilifteef goo xam ne gi kilifteefu ruux la xam nga ku ne xam na ne avant suñu suñu kilifa yu mujj yi fii ci wàllu diine yi nit ñi ci seen cosaan ak ci seeni askan ak ci seeni kuréeli pénc yooyu rek lañu lañu askanu woon di ci dox boo demee tey ci ci ci réew yu ñu wër bari na ñuy xeex ngir waaso dañu bokkul waaso nii rekk parce que kenn ku ci ne sa waaso ngay wane ne ci la bokk ci nit ñi te yooyu ay péete la yoo xam ni dafa gaaw a yóbbu nit ci xëccoo péete boo xam ne bii ruux lalu ko ak defarug bakken rek péete boobu moo señ téye nit xamal ko fi mu mën a yem ci péete dana bëgg li mu bëgg dana ko fonk dana ko sàmm dana ko jaral lu ne waaye dana bàyyi xel ko aussi que ni am na mbokk jullitam yoo xam ne yi am nañu seeni seeni seeni péete c'est-à-dire suñu kilifa yi diine yi ni ñu defee ba génn nit ñi ci kilifteef gu traditionnel gi andi leen ci kilifteefu diine loolu lu ama am solo la ci sàmm jàmm réew mi mooy am nañu sëriñ soo xam ne bu nuy wax sénégalais yëpp gis ci seen bopp mais bu ñu nekkoon ci kilifteefu démb kilifa gi buy wax dafa am rek ñu mu mën a waxal ñu mën ko déglu moo xam ñi mu bokkal waaso la moo xam ñi mu bokkal espace la moo xam bokk gi lu ko lal mais kilifteefu diine gi boole na waaso yu nekk ci réew mi yépp boole na tendance yi nga xam ne ci wàllu social la nga xam ne nit ñi bu ñu xesee bokk kilifteefu diine daanaka mën nga wax ne yi leen teqale woon yëpp fàtte nañ ko boo demoon ci civilisation occidentale am na foo xam ne bii boo fa tolloo ci ci ci ci am-am walla ci dayo du ñëpp ngay toogal dafa am ay espace yoo yoo yooy yooyu dem di yëngatu mais fii ngay gis ay nit ñoo xam ne ñi mënal nañu seen bopp lépp gannaaw ndimbalu yàlla nit du mënal boppam lépp yàllaay dimbale mais ci zahir mënoon nañu doyloo seen situation mais boo leen fekkee ci suñu keppaar yi léeg-léeg nga gis leen ci ay position yoo xam ne ay position yu fegge lay doon te day neex ci ñoom dañu ciy bég parce que am na lu leen transformer lu wulli seen xol wulli seen gis-gisu àdduna ba ñu am beneen orientation bu bees loolu jàpp naa ne liggéey bu am solo la boo xam ne bii suñu kilifa yi def ko mooy ni ñu tabaxewaatee sénégalais bi à travers l'histoire ba nga xam ni péeteem ci diine péeteem ci ci ci kuréel péete la goo xam ne gi moo ëpp doole péeteem ci yeneen yi ñaareel bi mooy ni ñu dajale waatee Sénégal mobiliser leen damay wax ne bi nga xamee ne kilifa aada gi daanu na kilifteefu aada gi daanu na ñi doon jaamaarloog tubaab bi ñu faagaagal ci ñu bari à partir de 1885 ba suñu jonn yàlla tey mais sëriñ si fi woon dafa am liggéey bu mag bu ñu def mooy mobiliser waat sénégalais yi ci ay ay perspectives yu bees ay yoon yu bees ay gis-gis yu bees sanc ay dëkk yóbbu ci nit ñi yar leen ñiy dëkk cosaan yi ñu fi fekkoon ñu conserver ko wëlbati jàpp naa ne xaw ma ñaata ñaata dëkk la moo moo sosu ci ci ci al al itaar al muridi mais xam naa ne bari na yi sëriñ bi sas yi yi yi ñi nga xam ne ay ay ay ñi topp ci moom ak cheikh yeeg ba ba tey jii alors loolu boo ko gisee philosophie wu mobiliser waa réew mi lañu am benn autonomie ñu orienté leen ci gis-gis nga xam ne dëkk yu bees la yoo xam ne bi ñu koy tabax dañu ko tabax ngir nit ñi ñëw fii jaamu fi yàlla ñu tabax ko ngir nit ñi ñëw fii dund fi seen àdduna dundin boo xam ne bii dana dëppoog seen seen diine ñetteel bi ñu def mooy lépp lu waroon tax waa réew mi teqali ko fexe nañu ba loolu ñu wàññi ko lool ci dugalante ci sëy ci dugalante ci daara yi ci dugalante ci daayira yi ci dugalante ci zaawiye yi ba nga xam ne yi nga xam ne moo taxoon nit ñi bu ñu daan toog démb ci jotaay boo demee kenn ku ne nga xam lan la bu démb ci jotaay boo demee rek kenn ku ne ci wàllu social di nga xam tolluwaayam lan la mais organisation sociale bu bees bi ñu indi dafa fexe ba loolu mu mu mu wàññi ko bu méttee méttee métti ñu dindi lépp luy waral ci seen ci seen ci seen jàngale lépp luy waral nit ki parparloo Seex Ahmad Bamba radiyallahu anhu li mu ci bind ci ay bindam kenn xamut ni mu toll wane ne moom yàlla may na ko yoon woo xam ne wii wu sell la wuy jeg wuy wuy wuy jokkale nit ki ci boroomam waaye am na yeneen yoon yu nit di jaar di wut yàlla te man ko am ah fa kullu wirdin yuradul murida li hadratillahi falan yahida sawaan intama ila al jilani aw intama li ahmad al tijani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qataan ala sawaabi loolu ñi ko doon wax ci jamono boobu bariwul ah boobu boo boo liiree adabu ñi nga xam ne dañuy yobbu nit ñi jëme ci yàlla kenn ku ne la ngay wax boo boo boo seetee substance bi mooy li ma yor mooy mooy mooy gànjar gi nga xam ne ku mu ku ko ñàkk rek ñàkk nga moom mu xam ne dem ci yàlla ay ay bunt yu bari la moom am na benn bunt bu wóor bu mu xàll mais ñi mu bokkal yoon wi aussi am na ay xàll yu ñu xàll xàll yooyu ku ko téye na ci sa xel dal nga liggéey ci mën nga ci am sa borom mais ñu rafetal seen diggante ci kàddu bu may liir minan al baaqi bu sëñ Mouhamad al muy wax ci Seydi El Hadji di ko melal dangay xam ne lii ku ko melal ko bokkul kuréel rek maanu ngo te yaa ngi yaa ngi wut defaral lan la wax mujaddidu tijaaniyati fi hada al qutr wa imaamuha al wariu ahadu a'immati almuslimina wa jahabitati alsalihina wa qad kaana xarisan ala xifzi alqaraba alladi tajmauha bi ahmad bamba almakki nee na kii may wax nii fekk ci ci ci nettali bi dafa ñëw ba foo xam ne fii daf ciy wax lu aju ci Seydil Hadji Malick ak Seex Ahmad Bam radiyallahu anhuma mu ne kooku mooy ki beesalaat at tijaaniya ci réew mi mooy imaamam bu sàmm boobu tënku ci sunna kenn la ci kilifa yi jullit ñi bokk ci mag ñu baax ñu sell ñi seeni ngënk ci la bokk mu ne ak xeroon ci sàmm bokk gi doxoon digganteem ak Seex Ahmad Bamba radiyallahu anhuma li ma ci intéressé ci wax ji yëpp mooy nangul sa moroom li mu doon jox ko xorma jox ko wàccuwaay boo xam ne bii day tax xol yi gën a jegante koo wax wax ju rafet ju mel nii ci moom mu bëgg la koo wax wax ju rafet nii ci moom njabootam bëgg la koo wax wax ju rafet nii ci moom ku la gis àtte la al ixtiraamul mutabaadal loolu ak yeneen yoo xam ni def nañu ko ci feddali jullit yi ni ñu nekk ay bokk innamal muminuuna ixwa loolu li ci sëñ bi jàngale ci ay xasaa xasaayidam kenn xamut ni mu toll wala tuaadu man raamtu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa loolu mooy feddali bokkuk jullit loolu ñun dañu ko woyofal te fekk lu rëy la mooy jullit yëg ne fu jullit nekk jullit mbokkam la loolu liggéey la boo xam ne bii liggéey bu mag la ngir saxal jàmm ji nuy saxal ci réew mi loolu nag boo ci booleek taxaw temm ngir senegale yi xam li nu doon moom seen bopp ñu utal ko ay tëralin loolu ci boo ci boolee yar su seeni mbooloo ci kenn ku ne mu fàtte démb ju ñaaw jëm ci ëllëg joo xam ne ji ju rafet la jàpp naa ne loolu li ñu ci liggéey bari na Cheikh Ahmad ay bindam jàpp naa ne li mu ciy jëfandikoo afawtu wala al afu kenn xamut ni mu toll waaw parce que bu fekkoon ne lu dal ci sa kaw rek nga jóg yonent bi moo wax ne laysa sadidu bi sora walakin sadidu man yamliku nafsahu inda al ghadab